aleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen ziar waaye di door waxtaan wi ci gërëm leen yéen ñëpp bàyyiwuñu kenn ndax taxawaay gi ngeen am diggante alxamis ba tey ji ci nemmeeku ak yittewoo li jëm ci sama wér-gu-yaram ñu ngi leen ciy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm kenn ku ne fi nga toog di inquiété wu di ñaan di julli di saraxe di gërëm ñi woote ak ñi yónnee message waaye di gërëmit ñi nga xam ne bàyyi nañu seen yitte déplacé wu ñëw ba fii donte jotuñu maa gis muy ay kuréelu politique muy ay kilifa diine muy ay citoyen lambda yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm di gërëm militants yi ak sympathisants yi mouvement citoyen yi organisation de société civile yi ñëpp ku lim jum rek waaye yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm leen wax ni nag am nañu tan bu baax alhamdulilah ndax lii ñu mën ji ma fas yéene waxtaan a yéen ci lu gàtt ay fan ci gannaaw mënuñu ko woon di gërëm personnel médical bi mbooleem seen ñiy liggéey ci wàllu santé ñi nga xam ne depuis infirmières yi infirmiers yi docteurs yi ba professeurs yi nga xam ne ñoom ñëpp awante nañu fii ñëw sëgg ci sama kaw daal di def seen liggéey ba ma am tan gi ma am tey ñu leen ciy gërëm di leen sant bu baax di wax nag ni li xew ñëpp ko gisandoo umpul kenn ndax lu ne fàng la ndax foofu la nguuru Macky Sall toll mooy seeni njombe ak seeni ñaawteef bu njëkk ba daan nañu nëbatu di ko def waaye léegi nëbatootuñu loolu nag day firndeel nguur gu jaaxle nguur gu nërmelu nguur gu xamatul fu mu jëm daa si dellu si bu si kanamee li xew keroog yéen ñëpp gis ngeen ko mooy jaay doole ki nga xam ne moom la Macky Sall ak nguuram nekkee te mënuñu koo def ludul ñu ngi sukkandiku ci jumtukaay yi nga xam ne yéen askan wi yéen a leen ko jox ngiree ñu wàññi jafe-jafe sénégalais yi ngiree ñu assurer kaaraange sénégalais yi ngir ñu fexe ba nit ñi am xëy am xel mu dal waaye ñu dajale doole googu yépp daat koy orienté ci nu ñuy def rek ba faagaagal képp kuy opposant ak képp koo xam ne nee nga bokk ma gis-gis ak ñoom mu mel ni li ci ëpp nag ñu ngi ko juble ci sama jëmm ji te loolu li ko waral yi ñëpp xam ngeen ko senegal yépp xam nañ ni bu dut woon police ak gendarmerie parti kese Macky Sall xam ne ni ñoo ko doole foofu ci réew mi li xew keroog ñépp ko gisandoo mooy ne forcé Ousmane Sonko dina dem tribunal ci jamono joo xam ne amul benn luwaa ci dëkk bi du constitution du loi boo xam ne nee na ci genre dossier bi farata la ci man ma teew tribunal bu ma sooboon sax ma ne dew ma tribunal du tee procès ba am juge bi àtte nu mu ko nu ko neexee li ñuy wax jugement par défaut kon amul lenn lu mën a justifier ci dossier boo xam ne correctionnel la nga ne forcé rek dinaa wañ loxo nit yóbbu ko tribunal ba tax nga toj otoom ba tax nga gaañ ko waaye li gën a garaaw nga jël produit boo xam ne ñëpp xam nañ ni produit toxique la mooy produit boo xam ne lu mën a gaañ nit la lu mën a def jombe yu bëri la ci wér-gu-yaramu nit jàkkaarloog moom pomp ko ko ci kanam ci bët nokkiloo ko ko te produit boobu mën a am lu bëri lu mu yàq ci wér-gu-yaramu nit kooku jamono ji ñu tollu tembe xamaguñu produit boobu lu mu doon yónnee nañu li nga xam ne moo nekkoon ci suñuy kaw yëre bitim réew pour ñu def analyse yi ndax fii lañ ko bëggoon defee waaye nee nañ ñu laboratoire yi nekk fii amuñu jumtukaay yi pour defee ko fii ci Sénégal ñoo ngi xaar résultat yi am na loo xam ne lu nit yi liggéey ci santé am na lu ñu njort ni lool la ci benn produit boo xam ne euh, agent anti émeute la yu ñuy utiliser ci yu mel noonu bu dee boobu la am na lu bari lu mën a def ci sant ci lu war jëm ci mbirum bët ci dem li ci mbirum noqi ak poumon ci dem ci li dem ci wàllu xol ak ci li dem ci wàllu biir moo tax keroog biñ ma ko defee ca saasa de métti woon na lool ci bët yi ak ci not noqi bi waaye bi ñu eggee kër gi ci ngoon leneen ak leneen yokk na ci amoon nañu ay douleur ci biir bi amoon nañu yeneen ak yeneen douleur ba tax ñu ne faw rek ñu dem hôpital ñu xool ñu waaye Sénégal yëpp gis nañ ni bi ambulance jógee fii di dem dañoo lànk ni ambulance bi du yegg ci sama kër il a fallu samay avocat seen bopp ñëw dugg ci biir avocat euh, ambulance bi ànd ak ambulance pour ambulance mun a yegg ci sama kër moo tax ma ne tentative d'assassinat la mooy pexe la pour faat suñu bakkan te du pexe bu jiitu te gëmm yi dina doon pexe bu mujj ñi ngi sant yàlla nag ndax bi ñu dugg see fii ci clinique bu léegi wax dëgg yàlla macha allah dañ fee fekk personnel médical bu mat lañ ko doyee samay médecin bopp déplacé wu nañu jóge seeni cabinet spécialité bu nekk ñi nga xam ne ñoo ma ciy suivre ñëw nañu fii def seen liggéey ni ñu ko war a defee ànd ak ñi ñu fekk fii ci clinique bi ñu ngi leen di gërëm leen sant njàqare boobu nag am moo tax sénégalais yu bëri tuddoon mbirum évacuation sanitaire mooy nañ ma génn réew mi pour ma dem xooli sama yaram bitim réew ñi ko wax ñëpp nag doore ko ñi nga xam ne maak ñoom ñoo bokk fare ci partie bi waa bureau politique bi ak militant yi ñi nga xam ne suñuy allié lañu ci wàllu politique ñi nga xam ne ci société civile bi lañu bokk ñi nga xam ne ci mouvement citoyen lañu bokk ak ñeneen ak ñeneen ñi ko wax ñëpp ñoo ngi leen gërëm leen sant ndax xam naa ni njàqare moo tax ñu wax ko waaye ñeewantu moo tax ñu wax ko humanisme moo tax ñu wax ko ñu leen di gërëm waaye ñu ngi sant yàlla ndax nee naa ñun dañoo mësa wóolu ci bépp fànn ñi nga xam ne ñoom la ci seen xam-xam màcc sa ñu nekk ci biir réew mi moo tax fii lañu ñu mës a fajoo ci lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ñooñu liggéey bi ñuy def ñu ngi koy def ñu ngay xaar ba dajale lépp ci résultat yi bu dee ñoom jàpp nañ ni laaj na loolu dinañ ko xool waaye tembe fi ñu toll nii loolu du farata ci ñun du farata ñun fii lekk rek ñu ngi mën a faju fii ci biir réew mi li ñu mënul def fii mooy analyse yi nga xam ne amuñu jumtukaay yi yónnee nañ ko bitim réew ba xam produit yooyu lan la buñ ko xamee it liñ ci war a def ci wàllu wér-gu-yaram ak ci wàllu yoon dinañ ko def ba mat sëkk moo tax xalaatuñu ni jamono ji jàmp na walla farata pour ñu génn dégg nañ sax ñi féete ci nguur gi naan ay waxu évacuation sanitaire ba naan ay expertise ak contre expertise amaana ñoom évacuation sanitaire lu leen di arrangé la man de ci sama jëmm bopp sàkkuma ko doxuma ko bokk na ci li tax mooy li ma njëkk a wax mooy fii léeg ñii nekk fii Sénégal yor paj mi ci wàllu biir ci wàllu bët ci wàllu euh, xol ci wàllu poumon ak yeneen wàll ñu ngay def li ñuy def te jàpp nañ ne war nañ ko mën def dañuy sant yàlla dénk leen suñu bopp ñaareel bi mooy ci wàllu politique ñu dañoo jàpp ni combat bi fii la biir senegal te bu ñu fàtte mukk ni saa su jëmm jaaxalee nguur ba xamul nu muy def ak moom day fexe ba génne ko ci réew ma moo tax noonu lañu ñu génne woon yonent yi ci seeni dëkk noonu la ñu génne woon mag ñu baax ñi doon résister yépp ci seeni dëkk fu nguur mu sa jaaxle ba xamul nu muy def ak nit rek day fexe ba mu génn dëkk bi te ñaare boo xasee ba génn dëkk bi mën nañu jafeel dellusi bi ci biir réew mi moo tax nun duñu génn réew mi combat bi fii la ñu bokk kook ñiy xeex ñépp ma jiital ci ndaw ñi ak seen taxawaay bi nga xam ne mënuma koo natt ci njàmbarte boole ci mag ñi nga xam ne mënuñoo génn xeex waaye ñi nga toog fi ñuy toog di encourager ak di ñaan boole ci mboolem seen citoyen yi nga xam ne saa su ma jógee sax di déplacé wu naan maa ngi dem tribunal wala maa ngi dem meeting foo romb yoon boo romb ñëpp ngi taxaw ci balcon yi di la tàccu ak di la encouragé xeex bi fii la te li ci des bëreetul duma leen bàyyil réew mi naan maa ngi génn bitim réew loolu rek la yàkkamti te bis buñ ko defee dinañu yeggali seen liggéey mooy xool ni ñuy doggalee li fi nekk ci résistance xool nu ñuy def ba cibler ñi ñu war a cibler moo tax fii lañuy toog ak ñoom di jëflanteeg ñoom di jàmmarloog ñoom di xeex ak ñoom ba keroog ñu jëlee fi Macky Sall ak système am bii nga xam ne baaxul ci Sénégal ñi ngi nag ci situation boo xam ne weer wu nekk semaine bu nekk bés bu nekk dafa am solom xeex boo gis bu mu bu mus a defar société définitivement cappaandaw gi mooy gën a métti lépp te foofu lañu ñu toll waaye suñu gëmee suñu bopp dëggal suñu bopp gën a takku li nga xam ne mooy mottali xeex bi soreetul li ma ci jàngat bëri na ci dinaa ci dellusi lii nga xam ne nag def nañ ko nee naa Macky Sall na waajal bu dee mën na jël bakkanu Ousmane Sonko na ko jël bu dee mën na jël bakkanu ay millions de sénégalais na ko jël ndax leen liñ ko bañaloon bii paa bañaloon ko ko ba weesu moom lañ koy bañalaat rek beneen yoon mooy du ma mës a ci loo xam ne du farata ci man sax ma dem wuyu ji du ma mës a ban yoon laa war a jaar ak naka laa fa war a jaare moo tax ñun ñëpp nañu takku waajal étape yi nga xam ne ci lañu jëm la ca des nag mooy dox taxaw def seetlu yu ndaw ak gën a soññu ñi nga xam ne ñoo taxaw mu ngir xeex te ma gëm ni majorité sénégalais yi la kenn ku nekk ak ni ngay xeexee li ma ci njëkk a jàngat mooy li xew diggante di 16 ak tey jàngat biñ ci war a jëkk a jàngat mooy askan bu taxaw taxaw jonn fas yéene jàkkaarloo ak nguur goo xam ne nguur gu mànduwul la nguur gu dëng la nguur guy jaay doole la nguur gu bugg a faagagal askanam la nguur gu bugg a imposer dictature la askan gu mujj musa taxaw te dëggal boppam amul askan bu xaj ci nguuram amul ndax nag waxoon na ni li fi amoon du fi amaat man jàpp naa ni lu raw li fi amoon am na te nag du lu ñuy bàkk wala lu ñuy rafetlu ndax li yàqu ci réew mi bëri na li ñu taal ci réew mi bëri na lii lépp mënoon na ñàkk waaye liñ ciy jàngat rek mooy askan gu taxaw ne du ma nangu bu mu njaam gi nga xam ne jógewul bitim réew bi paa waaye biir réew mi lañ ñu ko bëgg yeewe askan bu taxaw rek xajul ci nguur ñu leen ciy jaajëfal ci seen taxawaay waaye it di jaale ñi nga xam ne ñàkk nañ ci ab mbokk di dellu masawaat it ñi nga xam ne am na lang yu réy luñ ci topp yu leen yu leen jural loolu nag ci nguurum Macky Sall la amee rey nit yomb na leen loolu tey rek gis ngeen fële ci biñoo na war nañ leen ay image yoo xam ne nit mënu koo jàkkaarlook moom xool ko te du am lu wàññi ko ci moom muy alkaati yu jël balu fital dóor ko ci bopp ab xale boo xam ne doon manifester yoru lu dul ay xeer loolu mooy nguuru Macky Sall te loolu day ñëw yokk ci yeneen ak yeneen yi nga xam ne faat na leen diggante mars 2021 ak léegi te àdduna bi yëpp gis ko ba département d'état américain def ci rapport euh, ay organu Nations Unies def ci rapport ñu koy wax nag ni su mujjewul yi dina mujje fii ci ay juridiction Sénégal mu war a layoo nag ci bakkan yi mu faat lu ak loraange yi nga xam ne teg na ko ci Sénégalais yi lii yokk ci mbirum milice yi ñëpp gis ko ay nit yu mu jël ñu leen di jaxaseek police bi ñi ñu jox leen ay yat ñi ñu jox leen ay jaasi ñenn ñi nag ñu jox leen ay fetal ak ay grenade lacrymogène loolu jaaxalul sénégalais yi jaaxalul ndaw ñi ndax fi ñu toll kenn ku ne xam na li ko mbir mi jaral may gën a soññaat ndaw ñi di leen encouragé ne leen nag milice yooyu na ngeen jàkkaarloog ñoom te ku ngeen ci jàpp yi xam ngeen li ngeen def ak moom parce que kenn du fi joxe boppam ñu sacrifier ko ci caaxaan di massawu ñi nga xam ne gaañu nañ si waaye di massawu it ñi nga xam ne tey teg nañ leen loxo du lu ñuy rafetlu waaye yeew bi yeewee boo gis ci aw askan dafa am fu mu jaar dafa am ay sacrifice yu mu laaj man mii de Ousmane Sonko nee naa leen sacrifice buy am man maa si jiitu parce que jaral na ma lu ne jaral na ma sama bakkan bi waaye suñu réew bu ñu ratee rendez-vous bi dina jafe trop ñu dabuwaat loolu moo tax kuy xeex rek yow ndaw mi yaa ci war a jiitu ñëpp ndax sa avenir la a court terme à moins terme et à long terme ndax àdduna bi xaaratuñu te mënatoo dem Europe mënatoo dem Amérique te sa réew am nga fi loo xam ne buñ ko tegoon ci yoon nga am naataange ba faw kon bul nangu ñi la naan yaa fay perte li ñu naan jaru ko ñi la naan ragalal bul ko nangu mukk sa avenir moo nekk en te mën nga am li nga bëgg yëpp ci biir réew mi yow liggéeykat bi mën nga ko am yow transporteur mën nga ko am yow baykat bi mën nga ko am yow keneen ak keneen su ma limee rek mën naa lim secteur yëpp kon amul lu war a tax ñu deltu gannaaw ñaareel bi mooy ñun ñëpp ñu xam ni bi ñu door rek léegi la ñu sacrifié bëri na ñaata nit la si ci seen bakkan rot ñaata nit lañ ci gaañ ñaata nit lañ ci tëj kaso est-ce que ñun am nañu droit dellu gannaaw est-ce que am nañu droit di def ay calcul fi mu toll nii nee naa leen xeex fi mu gën a méttee fa la victoire bi gën a jege loolu diine sax jàngal nañu ko yàlla léeg-léeg dañuy nattu ba seet ndax dinañu bàyyi ndax dinañu dellu gannaaw fekk victoire bi jege na. waaye la jàngat ci li xew mooy Macky amul capacité bu mu jàmmarloo ak askan wi neewoon na li fi xewoon du fi xewat dem ut ay ngàndaay nee na dem jënd ay grenade jënd ay ay ay ñëw teg nee na recruté na ay alkaati waaye gis nga keroog li xew rek ci senegal yëpp wane na ni mbir mi dépassé na leen am na bërëb yu bari boo xam ne dem nañu ba grenade bu ñu sànni sax amatuñu ko loolu limu mu wane mooy bu askan bi yëpp yokkee taxawaayam su doon téeméeray génn juróom fukki téeméer génn man gëm naa ni ci ñetti fan ñeenti fan coow li dina jeex takk Macky Sall dina deltu gannaaw te xam ni moomul Sénégal donn ko ci ay waay juróom dañ koo dénkoon mandat te mandat ba jeex na faw rek dina dem te kenn du nangu muy faagaagal ay nit yu ko deful dara dul am ambition wax ak sénégalais yi ba dugg ci xolu sénégalais yi li xew wane na ni stratégie de la peur li tubaab naan stratégie de la peur mooy fexe ba xoqatal nit ñi ba kenn dootul ñeme ñaari at yëpp loolu la dund bu ñu nee dara am na rek Macky Sall génne lépp lu mu am ci gendarmerie ak police teg ko ci rond point yëpp pour sénégalais yi teg seen bët bu ko defee ñëpp tiit ne ah fii de ko fi yëngatu njaaxum am xoolal li mu yor ci ay dragon xoolal mu yor ci ay char de combat xoolal li mu yor ci ay alkaati waaye li xew diggante semaine passé ak tey wane na ni ndekete Macky Sall yorul dara ndax askan du du du hasard bu constitution ne kattan ak doole ak sañ-sañ askan wi rek a ko yor la souveraineté appartient au peuple léegi nag ñu ngi ci deuxième phase stratégie de la peur mooy li ñuy def pour nit ñi ragal xam nañ ni amuñu moyen pour contenir ay manifestations de masse yoo xam ne it day day day day lalu ci ci temps bi moo tax ñu ne léegi nañu def li ñuy wax des arrestations préventives mooy nañu fexe ba jàpp ñu bëri ci gars yi rawatina nag ñu ñu yaakaar ni am nañu yenn responsabilités yi mooy arrestation ciblée yi ñu nekkee loolu mooy deusième phase stratégie de la peur bu ko defee kenn ku nekk ni ah wóorul est-ce que duñ ma jàpp eh, est-ce que est-ce que est mbokk yi ragal ci yeb yàlla la bokk nit ku nekk li yàlla bind sew su app bi jotee dina am bakkan gi yàlla dénkuñu bu nee bés sàngam la bës boobu lay doon mun na la fekk sa kaw lal nga tëdd nelaw comme mun na la nekk fekk ci circulation bi ngay dox bu dee lii ñuy xeex gëm nañ ko te gëm ni jaamu yàlla la ndax amul lu weesu lu gën a kawe ci jaamu yàlla xeex ngir saw askan baax loolu amul lu war a fees suñu bët bën ñaan ñi ngi tiit walla ñi ngi ragal te fàttaliku toujours ñi nga xam ne ñu ngi woon suñu wet di xeex te tey nekkatuñu fi te Macky Sall moo dal seen kaw kon ñun amuñu droit deltu gannaaw lii muy def yépp nag yàgg naa leen wax ni ñett a ko dese police gendarmerie ak justice ñett yooyu ñoo ko dese ñi ñu jàpp nii yépp gaawantu dem présenter leen justice sànq nee nañ ma fii di tribunal Dakar lu mat deux cent yoo xam ne présenter nañ leen procureur dafa ne ñoom ñëpp nañ leen def mandat de dépôt ci loo xam ne participation à une manifestation interdite la nee naa leen problème mu Sénégal bi gën a rëy tey mooy justice te weesuwul procureur ak ñaari juge d'instruction bokk na ci li gën a rëy ndax xam nañ ni lu bëri bu ñu yóbboo dossier bi flagrant délit juge yu ñu fay fekk ñu ci bëri ci ñoom ay juge yu jub lañ ay juge yu dëggu lañ ñoo xam ne am na loo xam ne duñ ko nangu gis nañ ni ñu mujjee jàpp ñëpp biñ leen yóbboo ñu ci gën a bërile sursis la ñu am ñu ci des ñu bàyyi la ñu ñibbi seen dëkk seen kër moo tax ñu ne nag nañu fexe ba duñ leen teel a présenté à des juges nañu fexe ba yóbbu leen instruction yóbbu leen rëbës ñu toog foofu problème bi gën a rëy ci Sénégal tey mi ngi ci justice te weesuwul quelques magistrats yoo xam ni saa su réew mi takkee ñoo ko taal waaye nag fitna bi yem ci ay bopp borom nit ku taal fitna na nga xam ni fitna gi dina dal sa kaw yowit ñu ngi masawu ñëpp wax ni stratégie terreur boobu nag andi nañ ko ba hôpital bi ma nekk tey ndax ci suba ba léegi convoqué nañ waa hôpital bi police di leen laaj question yoo xam ne kenn xamul naka lañ ko mënee laajte nitu hôpital pourquoi Ousmane Sonko nekk seen hôpital lan la fay def ak wax yoo xam ne kenn xamul lu mu doon mu mel ni léegi crime la Ousmane sonk tawat am hôpital bu mu dem ñu faj ko comme tous les Sénégalais kon gannaaw bi ma waxee li xew yépp ci bés ba wax leen gën leen soññ ci taxawaay bi xeex bi na gën a dëgër na gën a taxaw te man mii di wax ak yéen bu soobee yàlla ëllëg dinaa jóge ci hôpital bii dem sama kër yeggali fa sama noppalu waaye xam leen ni kenn duma jiitu ci xeex bi lu mu lu mu laaj rek bu soobee yàlla dinañ ko def ndax xeexaluñ ko suñu bopp dañ koy xeexal suñu réew dañ koy xel suñu sët ak suñuy sëtaat bu leen kenn xoqatal bu leen kenn tiital bu leen topp ñi nga xam ne seen intérêt kese kese moo leen tax a jóg ndax liñ leen di jox ñu wër di wax réew mi suñu réew la ñun ñëpp ñun rek ko mën a defar kon di leen gën a lancer appel boobu di ko lancer coalition bi ma bokk di ko lancer l'ensemble des force vives de la nation di wax nag ni dafa jot ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci ay xeex nañu fexe ba xeex yooyu ñu dajale ko muy la jonction des forces vives di masaw it suñu mbokk suñu xarit suñu frère Dame mbooj mi nga xam ne Sénégal yëpp gis na ni essayé nañoo faat bakkanam ci loo xam ne kenn xalaatuloon ni am na Sénégal du gulet nag ndax def nañ ko ci ay soldats yu réer kii ñu gis retrouver euh, corps bi kenn ba léegi kenn gisu ko diis nañ fi ay nit yu dugg ci police ak seen wér-gu-yaram ñu génne seen néew ay fan ci gannaaw lépp ci nguuru Macky Sall la fi amee lii nag bu woyee kenn ku ne dina ut jumtukaayam ni ko kenn ci ñi doon waxtaanee démb waxee ñu naan ñu ngi koy wër kenn ku ne di nga dem ut say jumtukaay daal di waajal sa bopp fajal sa bopp te li ci gën a yéeme mooy bu kenn yaakaar ne justice dina ci àddu mukk ci àdduna daam boo keneen ak keneen ku déposé plainte justice du mus yëngatu ne day def enquête man mii di wax ak yéen rek am naa lu mat juróom ñaari plainte yoo xam ne mu ngi ci table justice 2017 ak léegi amul benn boo xam ne mus nañu ubbi enquête te moo neem ku déposé plainte ne Ousmane Sonko rek ñu ne nañu gaaw ut fuñ ko jaaree ba tere ko nekk candidat di masaw Dame Mbodj bu baax di ma sew it metre Clédor Ciré li nga xam ne mag la waaye liñ ma sotti lañ ko sotti te muy koo xam ne dafa am ay jafe-jafe ci wér-gu-yaram moo tax ñu rawale ko mu dem bitim réew ñu xool yaramam di ko ma sew di ma sew njabootam ndax lii mënoon na ko jural loo xam ne kenn xamul fu mu toll kenn fu mu fu mu yegg kon ñu ngi masaw ñooñu ñëpp di dellu wax nag ni lii lépp li koy faj mooy kenn ku nekk ñun ñëpp nañu takk suñu ndigg fas yéene jàkkaarloog Macky Sall jàmmarlook moom xeex ak moom jële ko fi ci fan yi di ñëw ànd ak xeex bi ñi nga xam ne ñu ngi koy xeex muy xeexu terrain bi dina am yeneen xeetu xeex yoo xam ne dañ ko andi ndax am na koo xam ne mënul génn ci mbedd mi xeex waaye am na yeneen xeetu xeex yi mu mën moo tax bañ doon andi xalaatu concert casserole li kon doon mooy jàpp ni am na ñoo xam ne mënuñu génn dem ci mbedd mi xeex nu ñu dem manifestation waaye taxaw sa balkon wala sa ëttu kër yor sa casserole dóor yomb na ci noonu la wax ni képp koo xam ne Macky Sall ni mu yoree réew mi neexu la dañu lancé yeneen xeetu xeex yoo xam ne mën na jëm ci grève générale ñu fexe ba réew mi yépp ne tekk tekkaaral ci ñaari fan benn fan ñaari fan ñetti fan kii nga xam ne yow sa magasin nga yor te d'accord ci ñu yoree seen réew mi am nga sañ-sañu tëj sa magasin ne ñaari fan yi duma ko ubbi dina dina la xañ ñaari fan dépense waaye loolu mooy sa asaka ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex ki nga xam ne sa oto nga yor di transporteur am nga sañ-sañ ne ñaari fan yi dinaa taxawal sa oto duma ko dawal loolu du dina paralyser réew mi yëpp àdduna yëpp gis ni Sénégal ànduñoo ak Macky Sall mun nañu dem nag ba def campagne désobéissance civile mooy bu dee nguur dem na ba légitimul bu dee nguur dem na ba méngootul ak askan wa askan wa gisatul boppam ci nguur googu askan wa am na sañ-sañu def lu ñuy wax désobéissance civile mooy lenn ci ay loi yoo xam ne ñu ngi koy teg te jaaduwut waa askan wi yëpp ànd ne d'accorduñu ak loi bi te duñ ko appliquer kon bëri na xeetu xeex yoo xam ne ci fan yi bu soobee yàlla mun nañ koo taxawal boole ko xeex bii nga xam ne ñu ngi koy xeex nag sur le terrain xeex bi nag foofu lay daanele lépp ci organisation la nañu bàyyi wax ju sew ji ndax jaru ko nit doo nekk ci xeex ku nekk di jiiñ woroomam ku nekk naan diw deful yëg diw def na di ñëpp a ngi def kenn ku ne dafa am luñ la sant ak luñ la sas te yaa ngi koy def nit na def loo xam ne moo ëpp fuuf li fës te nit gisu ko dafa am loo xam ni àndul ak xeex waaye toog sa gannaaw clavier ku ne nga attaqué ko te xamoo kook lu muy liggéey ci xeex bi loolu ku bëgg a saboter xeex bi moo koy def bu ñu paree li ñuy def dañu toog def suñu évaluation waaye nañu bàyyi wax ju sew ji ndax amul njëriñ ki nga xam ne yow xeexoo kenn gisu la waaye nga toog sa gannaaw écran di bind di kase moral troupe yi wala di indi xuloo ak xeex ci diggante troupe yi kooku liggéeyaloo ñu da ñu da liggéey contre ñun nañu bàyyi loolu xeex bi dañ koy gañe te mën nañ ko gañe nañu organiser xeex bi nañ ko synchroniser ndax waxoon naa leen keroog bis buñ ko tasaaree lépp ñu koy defandoo ci territoire national bi xajuñu ci kaw Macky Sall bu leen dara fees seen bët jàpp nañu nàngami nit bu mu fees seen bët ñun ñëpp ay soldat lañ fi mu toll nii dañoo tay suñu bopp yooyu yëpp mu fees seen bët nañu organiser xeex bi defaraat taxawaay yi te it fi may daaneele nañu moytu yenn yi ndax day yàq xeex bi wax naa ñu bëri nii war nañoo weesu fu ñuy jàppee suñuy militant ci ay post Facebook bis bu ne ma wax ko wala ci ay réseaux sociaux nañu moytu loolu naka la nit mu ne jóg bind loo xam ne leer na lii su ma ko dugalee ci Facebook mën nañ ma ci jàpp na kenn ku ne xam ni fële ci police ay écran yu bëri lañ fa teg recruter ay nit yoo xam ne suba ba ngoon jot ñi ngi xool page Facebook bu nekk lan lañ fa publier kon bu ñu sabootee xeex bi ñuy xeex kenn ku ne am nga sañ-sañu di bind ci réseaux sociaux yi waaye nañu moytu di ci bind loo xam ne day yombalal ñii seen liggéey pour ñu ñëw di jàpp nit ñi kon nañu moyetu téléphone yi liñ ciy wax ak liñ ciy bind nañu moytu groupe whatsapp yi liñ ciy wax ak liñ ciy bind nañu moytu facebook yi liñ ciy publier lii bëgguma ko waxee fii waaye fii rek laa ko mën a wax ñëpp jot si kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni man mii de Ousmane sonk xam leen ni bu doon benn laa am ci détermination tey cent laa ci am te ala kulli xaal Macky Sall dinañu pareeg moom bu dee nag moom xam na ni day dem. waaye plan mooy su may dem naa yóbbaale Ousmane Sonko mi ngi teg boppam mi ngi nax boppam mi ngi dugal ci boppam loo xam ne moom ci boppam gëmu ko kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen gën a jaajëfal di leen wax ni nangeen ngeen gën a dëgër laayu bu soobee yàlla daañu génn suba dem kër ga noppalu ñaari fan ñetti fan reprendaat liggéey bi donte médecin yëpp am na lu ñu bindal ak lu ñu sant ci li nga xam ne mënul ñàkk ci anam yu mel nii waaye nag jàpp nañ ni fii senegal toll kenn amatul droit toog wala nelaw wala bay yandoor ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah